والله صاحبي طيب، من دي ابو تو كاد دي سان دي نيت ما ما شاء الله باب حبيب لينا امنا اي كاد دي لي سان دي من من من كاد دي كاد يم ما نيت كاد دي يم ما ندخ لي في سورتي تي خيت خم خم ندخ لي في سورتي تي خيت خم خم بري نا لول لول تا ماتالي لا نجيكي تي شيخ سيد محمد بشير مو نجيكي تي شيخ سيد محمد البشير سيدي دوم سري دي سيدي دوم سري سوني صوبي سيد محمد الشيخ سيدي محمد المنصور دباغ الدباغ اك مغام مولاي عبد العزيز دي كليفه جوتاي دي نينا لي ليب مباخ با عبد ميلا ندخ ندخ نيت نيت كو ام باخ باخ رك نغمنا ماي كو ام باخ باخ رك نغمنا ماي فاخذ الشيء لا يعطي من فاخذ الشيء لا يعطي كو امول دار كو امول دار منو لا ماي دار منو لا ماي دار ندخ نيت دينا di nga di nga di ci waxin dina dina dina dina dina dem ci garabu mango. nee na ci waxin nit dina dem ci garabu mango. gësëm gësëm ba sonn. gësëm gësëm ba sonn. mango mango du rot. mango du rot. mu faf jël xeer. mu faf jël di rot. mango yi di waaye mango bi joxu ko xeer. waaye mango la ko jox est-ce que ko jox. wala tastawil xasana. wala tastawil idfa billati hiya ahsan waaw moo tax moo tax yiw yiw borom yiw borom yiw yiw rek la mën a bàyyee macha allah kàddu yi matale na mu ne macha allah kàddu yi matale na yal nañu yàlla may dégg ak topp yàlla bu mu nekk suñu mujj jotaay ndax ñaar rek a fi nekk alquran ak sunna te yonent bi sallallahu dafa waxoon ni maa ngi dem di len bayyi ak sen aduna nee neena taraktu fiikum am rëy ni ma in tamassaktum ma in tamassaktum bihima bihima lan tadillu min ba'di nee na maa ngi leen dem bayyi len ñaari mbir su ngeen ci jappé ci ñom ñaar ñooñu du ngeen ko du ngeen torox du ngeen sàmm moy moy téré téere yalla ak sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam neena te nit nit wala bok nit ku bax wala julit bok wala nit ku bax wala julit bok yonent bi sallallahu alayhi wa ndax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin rahmatan lil alamin la yërmande la ci mbinde fi mbinde fi mbinde fi ki gëm ak ki gëm ki gëmul ki gëmul ba ci ki gëmul sax ba ci ki gëmul sax يرمانده ينتبي أمبنكو صلى الله عليه وسلم حتى الحشرات والطيور والحصان والحيتان نن لبن تبير جنية حشرات إنسكتي يب ينتبي يرمانده ينتبي كويت دليني وح قليم جنون بس في نقطة قليم جنون بس في نقطة صلى الله عليه وسلم ديكو كلامي ديكو كلامي waa ji nga xam ne. waa ji nga xam ne. daf ko doon toroxal. daf ko di ko sonal di ko sonal. di ko lëjël. di ko lëjël. mu dem ci yonent bi mu dem ci sallallahu alayhi wa sallam. sëgg ci noppam yu tedd yi. ne ko yaa rasulallah ne ko yaa rasulallah. diw mii de li war ci moom. diw mii li war ci moom. maa ngi koy def maa ngi koy def. waaye li war ci man waaye ci man. defu ko defu ko. yonent bi woo waa bi wax ko li gëléem gi wax wax ko li gëléem gi wax faf sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam kon boog yàlla ñu yàlla boole ci ay soppeem kon nee na yàlla ñu yàlla boole ci ay soppeem amin jotaay bi fees na dell dell ak leer nee na jotaay bi fees na dell dell ak leer leer leeru yonent bi nee na jotaay bi fees na dell ak leeru yonent bi te yàlla dafa bëgg yonent bi yaa ayyuha allazina amanu yaa ayyuha allazina amanu tuubu ila allahi tawbatan نصوحا عسى ربكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار nee فيم fi mu ci gën a soxla ci la ñuy xam dëgg-dëgg ci la ñuy digënté yàlla. digënté yàlla. yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam. suñu borom soppé ni ko suñu borom soppee. yawma la yuxzi llaahu nabiyya. li yawma laa yuxzi llaahu nabiyya. wallazina aamanu. maahu. maayatu boobu. ñu ngi ci biir. incha allah taala nee na nuuruhum yasaa. bayna aydihim wa bi aymaanihim. yaquluuna rabbana. atmim lana nuuranaa. واغفر لنا إنك على كل شيء قدير عليكم نينا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما شاء والصلاة على سيد وجود محمد وأصحابه والآل أهل مناقبه صلاة على سيد الوجود محمد وأصحابه والآل أهل مناقبه صلاة على سر الوجود محمد وأصحابه والآل أهل المناقب صلاة على محمد وأصحابه والآل أهل المناقب السلام على فاسي ففيها أحبتي وفيها منى قلبي وأقصى مرائبي على سرور محمد أهل سلام سلام على فاسي ففيها أحبتي وفيها منى قلبي وأقصى مآلبي الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المال عليك اتكالي ويا ذا زلاني بسوء فعالي فأنت الرجاء ومن الدعاء ومنك العطاء فهب لي سؤالي وأزكى الصلاة 啊！ maa ngi leen di ziyaara bu baax sank bi ngay wax sama xel dafa dem ci li sëriñ Maodo ni bi al ashwaq ci gam gi ma deg boobu muy wax ni hazal wujudu muhammadun fi mahdi akrim bi man fi mahdi hazal wujud hazal wujud muhammadun وجودك المهدي أكرم بمن min مهده هذا الوجود به الى الإله ادم الخليل رجا بدمه sëñ bi sëñ bi ma dimbali ko ah teel ko rek allahu ma maam sëñ Mansour bi ma ko de xam nga xëttafat bi al ashwaaq loolu nekk départ bi dem ba ci yàgg naan tusaabiquni al ashwaaq te les départ la woon dem ba ashwaaq yi nga xam ne da nga ni woon xëttafat nag mujj ngay njëkkanteeg ñoom dukaati musafratil jawaani xibakiya nga xam ni ñoom daal ñu ngi noonu man daal li ma bëgg a wax mooy mbokk yi ñaanal leen ma sama mbokk yi parce que man tey bëgg naa bëgg koo xam ni mënuma ko melal kii nekk ci sama wet di sëriñ Mouhamadul Mansour Mouhamadul Bachir والحبيبين والشيخ الحاج عبد العزيز والشيخ الخليفة منصور بشير حبيب حبيب ñun ñaari jaam yi nag ñëw man ak Abdoul Aziz Serigne Babacar di suñu Serigne Babacar ak Mansour seq ñu Serigne Mansour nekk nii Serigne Babacar nekk na leen ñun ñu nekk ci seen biir waaye mbokk yi ñaanal leen sama mbokk yi. ku ci nekk ci ñoom amoon na ngànt tey parce que li nga leen gis ni ñoom kenn amul ci jot que Cheikh Seydil Hadji Malick amul ndaw wallahi alazim ñi leen gën a ndaw sax la ñu yenn kenn xamul nu mu toll waxatuma laat ñoom ñii ñi leen gën a féete ndaw laay wax waaye sañu ma wax sax ñu ñu ndawee waaye lii ñu def dafa rëy lool ci sama xol ay sang lañu te billaahi wallaahi wa tallaahi ñoom ñoo ma gën téeméeri junni yoon dama ko waat de parce que man xam naa sama bopp waxuma ko ndax wax nii rek mais li may wax dama ko xam ndax ay sang lañu moo tax man dama naan ku ma ci am ak problème ci ñoom ba yeboo nga maanu rek ndaxte dama leen bëgg te dama leen a fonk boo fekkee may xeex ak Mansour ba yeboo nga maandu dee Bachir ak sëñ moom Abdou ak sëñ Habib ñoom ñëpp ci yam ndaxte Cheikh Hadji Abdoul Aziz moom ay maam dimbali ma waaye man li ngeen def nii moom waaw man man man lii moom mbaa naa ko ah lii moom Abdou lii ngeen def euh, ëpp na sax wax dëgg yàlla sëñ Mansour dama ko bañoon yow nga ñëwaat defaat lii mbokk yi yii yëpp jàngat la ci ñun ci woyof Mansour li mu def lii mënoon na ko bañ a def kilifa la moom Abdou lii mu def mënoon na ko bañ a def kilifa la waaye lii lépp day wane ni ay sang lañu nit ku nekk nag nee nañu ku ku ku lan ku ku wàccu euh, diwtiir nii xaw ma ci pël ga laa jóge dañ ñu ko yow jóge woo ca pël ga waaye nii ñu def du dara lu dul seen seenu cang ñii dañu baax mbokk yi ñëw di seen mbokk di seen taalibe ñu bàyyi seen yitte ñoom waxtu wi xëy na ñu ngi seen kurus ñu ci yeneen ak yeneen ak yeneen waaye ñu bàyyi lépp ndax seen mbokk mu suufe mu doy di mi lii sëriñ Habib wax xam naa ni lii sëriñ Maodo boo gisee dina kontaan trop te dina ko gis bi ñu fi mujjee def yaakaar naa ni Pape Mansour daf ni Bachir ko doon seetaan ba bi mu jeexee sëriñ Maodo itam ni seetaan na ko ba mu jeex parce ñun ñoom ñii ngay gis amul kenn ku ci hmm. sañ yëkkati benn bant ni ko sëñ Habib waxee sànq te amoo ci ndigal te muy ñun ñi sëñ Habib sëñ Habib ñun ñii ñëpp amul kenn ku ci bëgg benn nit topp la hmm. nan la ko moom moo da waxee annaasu liman amal ilaha fala tamal ilayhim na dimu naasi fil walahi hmm. waaye ñun dañu jàpp ni ñun ak yéen ay frère la ay sœur lañ kër Cheikh Seydil Hadj Malick amul buur ak ci dagal moo ne la xaw ma saxaaba moo ko waxoon xaw ma li nuxrija annaasa min ibadati nnaas ila ibadillah amul kenn ku ci mës a dégg Cheikh Seydil Hadj Malick wala benn doomam di Serigne Babacar Sy ba ci Cheikh Mouhamadul Habib Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Serigne Mansour papa Abdoul Aziz Al Amin papa tonton Pap Malick ba ci xalifa bi suñu yaakaar tey di suñu sëriñ di sëriñu sëriñ Maodo mii rakkam ku ci mës gis kenn ku ñu bëgg a maati wala yegg si kaw boobu rek na yëkkati loxo bu wax soxlawuñu ko sax ñoom sax ëpp nañu mais ñun ñii ngeen di gis soxlawuñu benn nit topp ñu ndax àdduna parce que amul solo ku dégg li fi Mouhamadul Bachir wax xam ni ñii dañu màndi ci yàlla سرين حبيب واخ نكو سرين حبيب لمو واخ لغي دون تبا تلي بشير واخ دي اندي تاميت بندو شيخ سيد الحاج مالي كو لي خمني في اي نيتو لير رك في توك تي بو واني نيتو لير كين генوتي باسكو نيو نيب نات نيو بوك الحاج مالي امول نجابوتو دريت رك نجابوتو باس باس لام باسكو دريت امول سولو bu ñuy wootee deret ak si si rek te nekkuñu ci li mu nekkoon du ñu jariñ dara kon dañoo Habib wax na ko sànq lan li maam Khalifa waxoon sëriñ Mansour ak Serigne Cheikh ana ñu ñu ni ñu ngi seen nekk nit ñaa ngi ziar ni ah, nañu ñëw ziar dal na itam maam maam maam Sidi Aboubacar dégg naa ni Cheikh Hadj Malick dafa génn ci zawiya bi rek mag ñi daw daw maam rawaan nag Serigne Haadi ñëpp daw léegi naa moom Sidi Ahmed rëj rëj loo sëñ Babacar yërëm woy juram topp ci mbooloo mi rek ndeysaan ba bëgg ba Seydi El Hadj Malick wéetee mu dem ziyaare ko léegi bi ko maam Sidi Ahmed ni ko ba loo dem si mu ne ko damay ñeewante sama bopp bëgg xaar mu dal mu ni ko ah ci raj raj wala bi la am li ñu li ñu bëgg de sëñ Babacar daal ñëw moom itam buuxante ni ñëpp rek kon boog fii du buur ak i dagam mm-hmm. fii kër yàlla la te ñii ku dégg ñii li ñu wax xam ne ñii dañoo màndi ci alquran ñii dañ leen a ngént ci alquran yéen it yéen itam dañ leen a ngént ci alquran da ngeen a màndi ci alquran kon boobu maa ngi ñaan yàlla man waxuma ci daayira bi de man ci ñii lay wax na nga nañ nañ ma leen ñaanalal lii ñu def ndawul ci man dafa rëy tey mi ngi mel ni sëriñ Maodo moo fi toog tey mi ngi mel ni fi sam mm, Pape Mbër moo fi toog mi ngi mel ni Pape sëriñ Baye Abdoul Aziz moo tax lii maam Abdou def fi mu toll dafa rëy parce que tey maa ngi koy xoolee Pape bay moo tax diis na ci man même bi ko sëñ Mansour yëkkati dafa diis ci man mi ngi mel ni tey suñu bàjjan umu mi ngi fii mi ngi mel ni tey Pape Serigne Mbaye Mansour mi ngi fi ndaxte li Serigne Maodo doon wax naan yonent bi saa sallam mooy waxdatun fi kathra yonent bi rek bu nekkoon ci àdduna ñun ñëpp ñu ngi ci biir yonent bi sallallahu alayhi waaye ñun ñëpp tamit àdduna beeg 7 milliards yëpp ñu ngi jëmmal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xatal kaafiru bu weddee yàlla itam organisme am ci biiram weddiwul yàlla niñ koy waxee golo bi rouge ak golo bi blanc ak yooyu yëpp mi ngi dox ci kàttanu yàlla parce que yow même boo ko weddee di tëdd di nelaw mais yàlla bu la seetaanoon nga dee kon weddiwuloo ko parce que lii daw ci sa biir ci sa ruux ci sa lépp mi ngi daw ci ndigalu suñu borom subhanahu wa taala sëriñ Mansour nee na wa in min cheyin illa yusabbixu bi hamdi walakin la tafqahuna tasbixahum sëriñ Bachir ñu ngi lay ñaanal yàlla lii moo ñuy bégal ndax te itam boo fi nekkoon naan léeboo nag mu dugg fii yéeg fii itam di ñu toog déglu la rek ndax suñu seen suñu ay doomu sëriñ ngeen waaye itam dinañu xam ni kat wax dëgg yàlla ñuy bàyyi wuñu xel seen àll waaye ku dégg li ngeen fi wax xam ni ba jàng jotee itam da ngeen di jàng tabarakallah yal na yàlla fay leen yàlla yokk seen xam-xam sëriñ Habib alxabibayn sëriñ Habib sëriñ Habib del del del del wax waay ni nga firee yéeme na bëri na loo firi loo xam ne jàng naa ko waaye yàlla xam ne ni nga ko firee tey beneen firi la yal na yàlla sàmm la yàlla guddal sa fan dangay ku baax démb xaw ma sànq danga ma wax ci téléphone wax bu neex nga ni ma Pape Abdou man sañu ma def dara te aw ma ci ndigalu sëñ Abdoul Aziz Kébé di sa doomu bàyyi ak Pape Makhtar Kébé di sa doomu bàyyi wax boobu rëy na trop sëñ Habib yal na yàlla yàggal loolu seen diggante di la wax ni que ni Serigne Maodo ku la sopp la te bu ma nee Serigne Maodo rek moo di waxu sëriñam kilifam di Pape Serigne Mbaye Mansour ak ay rakkam sëñ Habib kontaan nañu si li nga fi wax yow itam moom itam muy nit ku baax sëñ Habib di ko bëgg yàlla di ko bëgg alquran te bu ma waxee loolu rek wax naa ko ci ñun ñëpp ci mam Abdou ci sëriñ Mansour ci mam Khalifa mi mbokk yi ma àndal nag ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara tey ziyaara itam soppi sëriñ Maodo ah sëriñ moom tey moom daf ko gën a niru sax daaw niru woon na ko waaye tey la ko gën a niru mbokk yi man daal maa ngi leen di wax nii maa ngi leen di bëggee soxna yi ñu ngi leen di ziyaara yal yàlla sàmm leen nii rek la li ñu fi jëlee mat nañu bind ba déwén bàyyi xel yàlla suñu diggante ak suñu borom bàyyi xel way jur yi bàyyi xel suñu diine tey jéggalante tey yërëmante tey suturaalante sëñ Maodo neen yaamal asaral la bis bu nekk wasatar al qabiha te yow doo génne benn jamil lu nit def nga weer ko nee na yow yaa man adara jëmel du la jëriñ dara wa yaa man satral xabiha mbokk kontaan nañu naa ci yéen ñëpp waaye man sama sang yi ñoo tax tey fi mu toll bu may wax nii rek damay taataan rek di waxaat mënatuma wax dara ndax bég ci ñoom si jamil maa ngi jibi xaaj jibi jéggalu xaaj jibi jàllo délégation monsieur le maire xaaj jibi ak taxawaayam jibi kontaan nañu di njaboot ci Serigne Mansour bu Pape Serigne Mbaye Mansour di suñu mag di suñu sëriñ mm. fan yii yëpp ñoo bokk nekk jàmm jog saw nag ñu santal maire yal na yàlla sàmm ko li mu yéene ci gox mi moo ko xam yàlla na ko yàlla defal yéen ñi nekk ci wetam itam képp ku mën lu baax rek am na ñu nekk ci seen man mii tey bu ma ñëwoon woon bu ma ñëwoon fii ni cundum bu neexee dinaa wéet waaye sama mbokk yu tedd yu baax yi maa ngi leen di wax ni sëñ Bachir sëñ Habib sëñ Mansour sëñ Abdoul Aziz man na ngeen xam ni seen soppee laa seen taalibe laa bu leen am benn lu ngeen bëgg rek bu ngeen ma soxlaa na ngeen ma ko wax ni ko sëñ Habib waxee loolu la ñuy wax ni démb mi nga naan sëñ sëñ Abdou bu ngeen ma soxlaa ba trois heures sax bu ngeen ma woy ma jóg waaye yéen ñi itam maa ngi leen di xamal ni sëñ Mansour bu ngeen ma woowoon ba 3 heures 4 heures ma bàyyi lu may bu leen hésité te loolu maa ngi koy wax ci yéen di ko wax ci Cheikh Mouhamed ba nekk ca Gambie sama mag ya nekk Tiwaawan ña nekk faneen ak faneen ak faneen man sama ay soppi man sama mbokk yëpp sama soppe la te bu ma sañoon lii rek mooy am yàlla xam na ni keroog ca. Euh, Moustapha itam. Moustapha sa ñoo nekk na woon Ndar. gis nga sëñ Moustapha Magam ñoo nekk noo woon ndar gis nga maam kon ndar la jóge tey moom itam ndaxte dafa amoon kenn ci njaboot Pape Sëñ Bay Abdou ku doon takk soxna xam ne ni loolu guddee na Moustapha amoon na yéene ñëw waaye maam Abdou bu teewee mel na ni sëriñ Moustapha teew na Seyd Jamil Jamil sopp Pape Abdoul Aziz moom moom boo tuddee Pape Abdou rek mu daanu Mouhamadul Amin xam nañ ni namm na italeeg soxna si waaye dara téyewu ko fi lu dul lii tabaarakallah fan yële maa ngi seetaan sëñ Habib ba mu fa demee bu sëriñ Mansour ak euh, ñoom Sam ñoom ñoo ànd macha allah maa ngi leen di seetaan ba bi ñuy wàcc Italie yaakaar na xamoo France ci ci kii bi mbokk yi kër Cheikh Seydi Hadj daal lii la soxla nañ leen àndandoo defar famille bi lii lii lii lii sax mooy noppal suñu mbokk yi mooy noppal taalibe yi bu ñu gisee ñu ànd rek ñoom it dañuy dañuy dañuy dañuy noppaliku kon boog yàlla nañ ci yàlla dimbale kontaan naa asalaamaaleykum mbokk yi ku ma tudd ku ma tudd daal xam leen ni bég naa maam Abdou bég naa sopp Seydina Cheikh Ousmane kontaan nañu maam Awa bu Pam Moodo dafa mel ni seen naa ko ci mbooloo mi maa ngi ziyaara ñëpp soxna yëpp tabaarakallah suñu yaay soxna sukkay soxna sukkay yëg na niñ dañ fiy ñëw rek bëgg Seex Alxaaji Malick Si Maodo ñëw na ba Tiwaawan bi ñuy gisante yàggul fan yi rek la yëg ni ñi ngi fiy ñëw rek ak njabootam mu bàyyi lu muy jàpp ñëw kon boog ñi ngi leen di ziyaara ñu ñëpp ñoo ngi ñaan sëñ Habib mu def ñaan Habiba TV suñu soppee dama dem ba ba bi ñu demee gàmmu Paris sëriñ ba Bachir ànd ak suñu sëriñ suñu way jur Pape Mansour Dabakh ci mbaax gaag ci yitte ga dama génn man ak sëñ Bachir xam naa ñoom aske bi Pape Habib ñu dugg ci benn ci métro ma waddal sama passeport hmm. te yëguma ko de ba biñ ne ginnaaw suba lañuy ñibbi ba jékki-jékki jot message yu Habiba ak euh, Seydou Jamil ñu ne ma daal dafa am benn tubaab bu for benn passeport gis euh, Pape du si nangam nangam fils de Serigne Maodo Sy nangam muy dugg ci internet bi di xool ba gis tàkkusaan bii mu gis Habiba TV waaw mu jël numéro woo ko ma gis kii bi ma woo Jamil mu ne ma daal dafa am benn toog bu woote nangam nangam ngi nekk ak aske bi sa rakk sa xarit sa soppee ñu woo mbokk bi mu ne daf ko for nangam nangam ñu dem jëli ci suba sa lañ doon ñibbisi kon bokk alhamdulilah. yéeme na. boobu dégg na ko. boobu bopp bëgguma mu jot ci ndax yitteem ak <laughs> tonton Pape su ko defee mbokk yi ak Tivaouane 7TV Tivaouane 7TV suñu suñu Serigne Babacar suñu soppe ñoo ngi ñaan yàlla lii yàlla na dem ba nekk ay télévision yu mag a mag bi jaay Seydina Mouhamad ni ko ko Asfiya nekkee almalikiya yéen yéen ay télévision xadara bi di ñaanal itam xalifa yi fi nekk yëpp sëriñ Mountakha Cheikh Mahi Cheikh Mahi fan yi dama gis ñuy wax ci moom lu nekk man yéen da ngeen a dof am na ñoo xam ne ku leen wax ku leen am di wax ci ñoom lu bon da ngaa dof mm-hmm. waaye ñoom ñoom xam nañu xam nañ li ñuy def de. Mm-hmm. moo tax mu ne ku mën na na saaga ku mën na wax lu ko neex ndaxte yonent bi lañ ko njëkk a def. mës naa dégg ci Serigne Moustapha Samak mu ni képp kuy wooteel yàlla képp kuy wooteel yàlla. Mm. te préparé ñu jël jaasi teg sa baat. préparé wuloo ñu wax la lu bon préparé wuloo ñu saaga la préparé wuloo ñu wax la lu bon lu nekk nee na xamal ni prépa taxawaguloo ngir waxal suñu borom. parce que lu ñu def yonent yi yow nga ni sëriñ nga te nanguwuloo ko mais sëñ bi yow sa ku ku ku xool xam ni que ni matuloo matuloo ndaw. illa mi illa man zulim. am na ñoo سرني حبيب مي وقت بين آية بو يلا وقت القرآن نير يلا وقت نني بقول كوي سي واللبن مونينك إلا من ظلم واي مومي إتام بين جو نيجي وقتان تي قصة الإفك سيدتنا عائشة لولو نيكو تو مالون مي عائشة مو مو مو مو مو مو غنا تيدو سونو سونو كليفا يي koo xam ne Seydina Aboubacar di way juuru Seydatna Aïcha di soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Aboubacar moo ko daan jox lu mu dundee mu dem wax ni que ni dafa bett Seydatna Aïcha ak góor nangam ak nangam ak nangam ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais itam nga xam ni góor war na dal de parce que yàlla mi ngi jàngale foofu ci saa si yonent bi koo xam malawul aala dem nga fa gis nga li tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ëllëg rek. noo ko waxee sax ku dul tiit ni ko ni ko yore ni ko Seydi Hadj Malick waxee kul wa kulluna siwal xibbi mawsuufun ku dul yonent bi saa sallam rek di nga tiit parce que koo xam gis na safara gis aljana xaasinu naar malik nga xam ni du ree du def dara du raf bi ko yonent bi nuyoo sax yonent bi nee na kii mooy kan ndax jaaxle mais ku gis loolu lépp mais kooku lu muy tiit parce que nit tay boy dem fo xamul wala lulay tital da fek gisa goko mais mom lolou lépp dem na fa ñu wax nak lu bon ci sayyidatna aisha mais xolal yàlla abou bakkar don ko dundal Aboubacar dafa mujj téye loxom ci ci ci ci mistah xaw mistah mistaax mais yàlla lan la ko wax ala tuhibuna an yaghfira allah lakum kon bok wax ju ñaaw mbok yi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxuma sax julit ba ci yenn ñi nga xamni dañuy wax lu ñaaw ci moo xam mutasawif bi wala ni kéeféer la ba ci mutasawif bi sax su ko waxee ci ci ci ci ka nga xam ni que ni xëy na wahabi la wala salafi la wala jaaduwul yonent bi saa sallam nekk nag ay saxaab am koo xam ni saxaaba dafa tuub waaye ay wayjuram dañu dee ci kéeféer am lu ñuy wax li yonent bi ne bu leen lor seen mbokk bëggul sax kuy wax lu ñaaw mais fii ngay gis jullit ak jullit non waxuma sax xasante mais dafa mel ni dañuy bëgg sax wane ni daal kii mutasawif la dem na safara jullit buy bëgg ni kenn ci njabootu yonent bi dem na safara di ko bàkkoo te yonent bi saa sallam ni du ma bëgg te kenn ci sama xeet mi ngi biir safara mais nañu xee xoolaat seen bopp al xil yàlla nañ ci yàlla musal yo wa nazana ma fi sudurihim min xil nga xam ne xil dafa sori nit ki dina nekk jullit sax baax am iman ñu àtte la ba nga dugg biir aljana yàlla ni wa nazaana ma fi suduri min xil Seydil Haaji Maalik ne al mutasawwiful kabir nee na du ko xaaree aljana fii laa koy commencé xërñeeñ yooyu ñuy denc suñu xol di ko jàppalante nañ ko dindi commencé ko fii su ko defee mbokk yi man maa ngi duggaat sax ci baneen asalaamaaleykum wa rahmatullah man daal sama mbokk yi daal ñaanal leen ma leen si kontaan naa lii ngeen def rëy na ci man de wallahi laa sax rëy na ci man trop sëñ Habib kontaan naa kontaan naa ni ngeen bàyyi seen yitte ànd ak man kontaan naa. mënoon nga defal mënoon nga defal sa bopp waxtaan bi yëpp. déedéet déedéet déedéet Mouhamadou Bachir lii li mbokk yi bu ñu ñëwoon te waxuñu dara lii njabootu Cheikh Seydi Hadj Malick lii la maam Abdou waxoon sam pap Abdou Serigne Cheikh pap Sëñ Bay Mansour sëriñ Maodo tonton malik ni leen nangeen xam ni euh, danku ceeb dundalatuma ak guux ndox mhm. li may dundal du dara lu dul ngeen ànd nekk benn bu ñu ñëwoon te ànd nii rek toog ngeen gis ñu rek doyoon na sëkk xalifa bi nag Pape Serigne Mbaye Mansour ngeen ñaanal ko yàlla guddal fanam bàyyi ko soxna Awa maa ngi lay ziara alhamdulilah naka naka suñu suñu kii ndey ziareel ñu ko soxna yi maa ngi leen di ziara man daal maa ngi yemale foofu kàddu yi nañu jox Serigne Habib mu ñaan yal nañu yàlla may beneen yoon bi daje ko ci jàmm ak salaam. waaw waaw kon boog bismillah joxal joxal góor di nuyuwaat bu baax mbooloo ñëpp di leen déglu ndax Mouhamadul Basir Bay Bay Mansour Bay Mansour Sarr maa koy ziar baax ñoo ngi dem ba léegi ñoo ngi déggante ci programme Mansour wallaay di suñu sëriñu sëriñ di suñu sëriñu sëriñ di suñu sëriñu wayjur di suñu sëriñu wayjur amul fenn fu muy toog amul fenn fu muy toog Pape Mansour nekk fa nekk fa lu dul ni mooy du mooy ubbi te moom la ñu defal tey te moom la ñu defal tey yàlla yàlla dëgg maa ngi jéggalu Papa Abdou si nee na mi ngi jéggalu. Baye Baye Mouhamed Dieng ñi ngi koy jaalee ngi koy eh, sëñ bi nee na Baye Mouhamed Dieng bi nga xam ni moo wuyu boromam tey démb. ñu ngi koy jaay mbokk yëpp. jaar nañu sax ci kër ga. nee na jaar nañu si kër man si fii laa njëkkee doog a dem daal. saa yu jaar nañ fa. nee na jaar nañ fa waaye yéen a fa taxaw ndaxte sëñ sëñ. sëñ Sidi Ahmed waaw waaw Ahmed mi ngi doon moo ko kii njabootu maam la. Cheikh Mouhamadou Moussa waaw. su ko defee yal na yaasal yàlla yeesal yërmandeem. nee na yal na yàlla yeesal yërmandeem bu baax nag. bi jaay Seydina Mouhamed bi jaay Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf. waaw man Abdoul Aziz Ndiaye itam nag ñu dina ko déglu xam naa ni sëriñ bi ñoo ngi jégalu bu baax si kàddu yi waaye lii nit du la ko yàlla du la ko defal te doo ko sante biir waxtaan bi am na yu ma si jàng mooy jotaay bii bari am-am taxul nga am ko bari connaissance taxul nga am ko dëkkuwaay taxul nga am ko jagle yàlla suñu borom képp la. te jëmm gii nii yàlla mooy boole ay nit moom mooy sama sëriñ fii ak fële te nag mu nag lu tax mu doon sama sëriñ gëm bi mu gëm ay waajuróom semaine bi daam ñaari rajo yu ma invité ma tàgg ko ne dama faa bëgg a dem mu ne ma boo demee jëlal sëriñ Mbay si ma sëriñ Babacar Mansour xalifa bi jiital ko si kanam jële sëriñ Maodo teg fa jëriñ sëriñ Babacar Abdou teg fa jëriñ sëriñ Mansour da baax teg limale ko mu ne man Pa Abdou nga sànni ma ca ginnaaw ginnaaw bu ma tudd te loolu bu ko deful woon mun naa roy si moom jaare noonu tey jii moo ma tax ma yemale sama bopp amul benn kenn koo xamante ni bëgg naa am teggee relation ndi jël mi gii nii tey wax dëgg yàlla sëriñ bu lay woo bàyyi laa ak sa xel bàyyi la ak sa poos kooku soxlaalu la dara programme bi démb ak tey daf ma was woo ba xam amoo problème lii ba xam amoo problème lii te wallaay naa si problème temps mu viré ko jox ma ko waaye toppee ma ko loolu li sëriñ bi wut moom laa bëgg si moom du ma xaritam de moo mën na maa def xarit du ma soppeem man sa taalibe laa bëgg doon wallaahi la azim te sama kanamu waajur laa ko waxee te jox na ma ndigal ma doon sa taalibe te yàlla na ma ko nangul ndax li ma defal dañuy bokk ci suñu sëriñ si. kon incha allah maa moom nekk taalibe si suñu kanamu sang yow nañ nekk taalibe ci ci ci sëriñ Mansour. kon ak sëñ Mame Abdou. man man ak Habib ñun ñaari Habib. ñaari Habib ak Bachir ak man mii ñun ñooy seen taalibe si kanamu sëñ Mansour ak sëriñ Abdou. sëriñ ma seeralaal la beneen mbir maam Abdou mii wallaahi laa dañuy déggante téléphone. mais ñaareel si moom saa yu ma déggante moom téléphone balaa mu nuyu la la wax ana sëriñ Papa Abdou baa mu ngi si jàmm ba xam gëjoo leen déggante ba tey jii nii Mouhamadul Basir bi dañuy waxtaan lu bëri su ma bindee sëriñ Papa Abdou sama sëriñ danaa ma déedéet sunu ma xam ne nii wala ma lay bëgg-bëgg wallaahi azim moom moo la gën a bëgg kon si Malick maa ngi leen a ñaanal yàlla yàlla yàlla fay leen. dama dama bëgg li benn kii rek waxal. wallaahi dama nekk fas biñu nekké nekkee Fass Touré. nee na bi ñu nekkee Touré. Bachir Bachir Bachir dafa dafa bëggoon ñëw. néna na dafa bëggoon ñëw bobu bobu ñi ngi am rek ay euh, ay 11 ans ah. nee na boobu ngi am ay fukki at ak ben rek. ay 8 ans 9 ans néna ay juroom ñetti at ak juroom ñenti at sa juroom ñaari at. Bachir ni dafa bëgg ñëw. néna mohammed Mouhamadou dafa bëgg ñëw. dafa doon jàng école. <laughs> néna dafa doon jàng école. ba am vacances rek. <laughs> nee ba am vacances rek. non astafurlah wala vacance la woon sax. la dañu doon ñibbi. nee dañ doon ñibbi. tabaski xaw ma. tabaski xaw ma tasanteeg mu am vacance. nee na tasanteeg am vacance. ñu ànd ak moom dem. nee na ñu ànd ak moom dem. moom Abdou waajal ñu. nee na sama turando waajal leen. bi ñu yeggee. nee na bi ñu yeggee. 93 93. boobu Fass amul courant. nee na boobu Fass amul courant. te néeg bi ñu doon fanaan. nee na néeg bi ngeen doon fanaan. mën naa ni. mën naa ni. ci kii bu verte bi nii rek ci ginnaaw. ci kii bu verte bi rek ci ginnaaw. jàpp nii jàpp ni ba ci maam Khalifa yeggul sax na le. ba ci maam yeggul sax na ñu dugg ci néeg bi. nee na ñu dugg ci néeg bi. Bachir ni ma fu ñuy fanaan. Bachir ma fu ñuy fanaan. mu ne ko néeg baa ngi nii fii la ñuy fanaan de. mu ne ma bu doon yaa amutu def nii. nee na bu doon yaa amutu def nii. yaayam mu ne bu doon su bu doon bu doon yaayam du def nii ma ne ko ah fii de moo fi nekk ma ne ko mu ne ko loolu de fii de loolu moo fi nekk daanaka boobu mat nañu juróom-ñeenti nit nee na boobu daanaka mën nañu juróom-ñeenti nit ñii dañuy tëddee nii ñii dañuy tëddee nii ñii tëddee nii ñoom Pape Assane sama mag ñoom Pape Assane sama pap moo doon sama mag Moussa sama pap moo doon Moussa Pape Soumbey Mansour waaw bi mu bi Cheikh Tidiane waaye waaye sëñ bi daal sonn faa sonn sonn nee na sëñ bi sonn faa sonn sonn am na benn jour nee na am na benn bis. ñu ñuy sarax ay euh, beñe. nee na ñu leen di sarax ay beñe. <laughs> ñu jox ko suñu wàll mu téye ko. nee na ñu jox ñu jox ko ñoom jël seen wàll jox ko ba Bachir. téye ko téye ko nee na Bachir gàddu ko nag. am benn am na ku ñu naan Pape Tall moo daan ku ñu naan wax Pape Tall moo daan dawal yal na ko yàlla yëngu. doomam Moustapha Tall. doomam Moustapha Tall. doon dem boutique ba. doon dem boutique ba. di daw xel. di daw xel nee na. romb Bachir rek. romb Bachir rek Bachir xalangoog beñe. Bachir xalangoog beñe. mu ne ko waa Bachir nii lan la. mu ne ko Bachir nii lan la. mu ne ngelaw tafataala ma daaneel mu ne ko ngelaw <laughs> waaye boobu nag dafa xiiboo lool nee na boobu daa gidi boon daa daa. xiiboo noonu daa xiiboo noonu ndeysaan. macha allah si maanaam jërëjëf si si si. ndeysaan daal xam naa ne sant gërëm rek la. dëgg yàlla di la feddaliwaat kóllëre bi maam Abdou def tey si suba. wax dëgg yàlla ñëw na. feddali kóllëre paa bi ndax yàlla def na daaw ba góor gi fii la toogoon maanaam ba muy toogoo moom taxaw moom fii moo ko daan ko sax di ma seet si xaritam la lool wallaahi mu sopp ko lool nag wax dëgg yàlla maam Abdou muy ñëw taxawaay fa taxawaay bu rafet si gir ñu ñëpp mu jëlaat oto demaat bandar ñëwaat fii kon ñu leen ñaanal lekk mooy fi Seex Sidi Hadj Malick tegoon tànkam yàlla boo leen ko rëccul te wax naa bu Sidi di naxe man yàlla ma nax si raxalmaay bi naxe yàlla ma nax lii nag si Malick mënuma la koo fay yàlla rek la ko mën a fay tey jii ñëpp bëgg nañ ma ñëpp sopp nañ ma ngir yow tey jii mënatumaa fayu lu bon ngir yow ku ma defatu lu bon wallaahi xàmmeetuma ko sax ngir yow ndax loo ko wax mu ne baax na baax na garaawul defal boo lee mu nu la tempéré la wallaahi programme bi moom moo ko defar dafa laa comme turam tabe koo ko présenté ku nekk wala l'enzyme mu woo ko wax dëgg yàlla. ngeen baal ma maa ngi jégalu sama kanam si fii ma doon. waaw dafa dafa la ko baax. ndax loo xam ne ku ko am say mbokk wala ku am say nawle sa jikko bopp moo la ko may. Mhm. parce que am loo xam ne tey jii yaatal bi nga yaatal du du la du wàññi bi nga jox Mouhamed.

papa bi dama wax ne lii wax lii wax ñëw sa kër seet wala Bachir wala Moussa wala Habib wala suñu Habib dafa am loo xam ne dafa rafet waaw sa maanaam nag la waaj a wax ko dañ lay fay nga waxal ñu alaaji Abdou mu rëy a rëy ñëpp toog grand Serigne Dakar gaa yëpp toog mu ne ñu jox ko xaalis nag bu rëy mu ne ko waxal mu ne kese allah asalaam. ñu ne waaye yow lii ko mën a wax leen a koy baax. amul kon sëñ Abdoulaye Sow tur dafay mel ni lépp. sëñ Jérémy du Saafé sëñ laa sox yal na yàlla bu des. amiin lii baax li rafet yëpp yow la. waaw yaa ko yaa ko yaa ko rab ba mu rafet. waaw yaa ko rab ndax soo wooteel woon mën nga bañ a rafetee nii. waaye sa woote ak sa dajale ak sa yaakaar ak sa xol bu sa xol woo nga ñëpp ñu ñu ñu ñu am itam ci ñu la ñu gënal si. yan yàlla guddal sa naa nag. du jotale nuyoo bu baax a baax góor gi sant na bu baax coono moo ko jàpp moo taxit waaye sant na ndax it naa ñun lépp lu dëreetoo su alaaji Amadou Seye Dieng ay jaam si xaaj maa ngi war a doon parce que lépp lu am. seen maam moo ñu ko defal wax dëgg yàlla tey rëccuwuñu ko benn yoon wallaahi azim ñu ko benn yoon xam nga kan moo nanguwul nekk taal si Seydi Hadji Malick waaye ñun yàlla nañ ko yàlla nangul bañ nekk ko topp ko te yàlla bu ñu réeroog yéen mukk programme bi daam ñaan bu ma si ñaan chaque année buñ ko neree def te uteeg kadduwaat yaawoon yàlla ko yàlla sopp tey du am kon lii moom ba mu koy def en l'an 2017 amaguma sax 24 ans morom ba ma sëriñ bi di seet si amaguma sax 24 ans 2017 la tàmbali lii amaguma 24 ans maa ngi ci école bi di jàng kon ko xoolul xam-xam xoolul alal xoolal caare lu mu ree ñëw tuyaawan mu déplacé wu koo xamante ni 22 ans la am 2017 nga seet si ko ba léegi chaque année nga koy def wax yàlla loolu mbaaxam la ak bëgg mbokk ak bëgg njaboot kon lu ma lay waxoon rek si ku la bëgg dama nga lay bëgg fonk la ku la bañ yow yaa tax nag ma nànk nànkal waaye ku ma sant ni bañ na ma am ak yow affaire ak foo dëkk ak foo loo sant ku la bañ wallaay naa wasim du ko bëgg wallaay naa tax yàlla ma ko yàlla nangulee loolu ku la sopp nag yàlla na yàlla jël sopp ak cofeel def ko sama xol ndax man yow laay wër bu guddi ma dem tëddi di nuyu bu baax yaa tabara sama yaay sama soppe sama sëriñ moom moom mooy borom tànt bi wax dëgg yàlla xam naa ni Bachir mii li tax mu kii la wax dëgg yàlla yaa tax yàlla yàlla barke incha allah maa ngi yore jox rek kii incha allah. salaamaaleykum sëñ bi man de samay wax du ci bëri. dëgg la li ma waxoon bërki démb rek laay waxaat fii tey ci ci rajo bi. dëgg la sama mag mu bokk ndey ak baay ku génn àddina kii ñëw na fi ci suba ñi ñëpp xam nañ ñoom ñëpp xam nañ depuis presque une semaine ngi nii nekk ci affaire boobu ñoom ñu nekk ci barki démb rek moom ci boppam ñëw na foofu mu defal ko ay ñaan di ko di ko di ko wax ci sëriñ bi lu loo macha allah man fekkewu ma ko sax veille bi mu gaañoo veille bi mu gaañoo dem naa ba kër sëñ Moustapha Sy Jamil ca Fass daloon toog fa ñaan fa ñaan fa di fa ñaan pour seen lii réussir billahi barke Cheikh Al Khalifa malik fa ba fa tisbar ba tok fa bu fa ma le lendemain le lendemain la ko rendre compte mom ki mom mi décédé mi rendre compte yu bëri bëri mo wax finalité bi dafa bëgguma sax affaire finalité bi xam nga wax ci ne ma kër mu may wax ci sëriñ Moustapha Sy ñu waxante parce que sama papa daf ko jëloon yóbbu ko Tiwaawan bu mu jógee Tiwaawan mu indi ko kër sëriñ Moustapha Sy Jamil ñu nekk rue 15 ba nu ñëwee Fass ci soxna nday Beng ñoom ñëpp njaboot googu yëpp jëm ñëpp teew nañ fi comme ni ngeen teewee nii fi moo tax fi affaire bi dafa ala daw mee moo tax man daa ngi que am na dese mais billahi barke Cheikh Al Khalifa yëguma ci yëguma loolu parce que ñii ñi te yéen a ngi teew man maa ngi jégalu bu baax a baax a baax a baax parce que barki dem dama ne leen si si toogee suñ sëriñ ci suñ toogee man amatuma ci kàddu benn kàddu awma ko ñoom ñooy dof ñoy dindi ñoy def mom mi ci suba jaar na fa ba avant muy dem papa am ñew na ba ci biir kër gi ci ci photo ma ngi fofu ak bo xam def ko and ak sama mag bo ma lay wax nii moom borom borom borom daara ji borom borom borom borom borom borom daara ji mom mom seigne babakar si ñew na ba ci kër gi fofu andi saafantoog moom boobu temps yàgg na mm-hmm. saafantoog moom ci biir bi ak yeneen ak yeneen abi professeur boobu moom moom sama mag boobu moom moo ko boot moo boot fat si ñoom ñëpp ñëw nañ fi dem donc donc affaire bi du ay affaire u kasaaw kasaaw kii ni ay ca ñoo ñoo bokk deret ñoo bokk lépp waaye nag ñii samay sëriñ lañ bu ñu am na wax joo xam sax dootuma ko cooxati bu ñu waxee rek ma ne leen doy man ñoom ñooy bu ñu toogee daal doy doy man man ci lépp ci lépp ci lépp waaw so coono moo tax sax mënuma ci wax yu bëri quoi yu bëree bëri yal na yàlla fay leen yal na yàlla barkeel bis bi bis bi moom moom mi moom mi ak ak i ak i magam yëpp dama leen a gërëm billaahi barke Cheikh Al Khalifa yàlla na yàlla mi nga xam ne mooy sutura defal leen sutura gërëm naa leen ñoom ñëpp muy góor di jigéen ñoom ñëpp nag laa wax parce que bu ñu jaaroon ci beneen piste itam man ma am problème te loo bëgguma ko te yàlla def na ñoom ñëpp ñu ngi ci ay yoon yoo xam ne yoon yu baax la sant yàlla rek moo fi nekk yàlla yàlla def xéewal bëri bëri def ñaar def ñaar Mansour ñaar Mansour ñaar waaw sëñ Habib waaw wuyul jox ko jox ko mooy ñaan na ñëpp teewlu waaye Pape Habib si ñu ngi sant Pape Abdoul Aziz bii bu baax suñu kilifa suñu mag mbaax bi mu wax yooyu yëpp nee na mbaax gi nga wax yëpp mi mi ngi ci yow macha allah macha allah sànq jotuma àggali. sànq jotul àggale bañoon bañoon euh, déedéet si loolu laay euh, waxtu bi tëgg. waaw di di di nit ñi rek tabaarakallah waaye. li yëpp mbaaxam la waaye li lépp sa mbaax la. li ma doon wax naan sànq. li ma doon wax sànq. nit ku am yiw nit ku am yiw. yiw rek yiw ngay joxe. yiw rek ngay joxe. moom yiw la bëri. Pape Abdou Aziz mii rek la am moo tax yiw lay joxe. daf ma daf ma mës a firil. daf ko mës firil. wa innaka la ala xuluqin azim. يونتبي صلى الله عليه وسلم منما يونتبي صلى الله عليه وسلم باب عبد موكو واخ نيما يونتبي صلى الله عليه وسلم نيما يونتبي صلى الله عليه وسلم لا تا يالا ديكو سولال مبو موم لا تا يالا ديكو سولال مبو موم تستن نكو تبول تستن نكو تبول تب رك سولال كو تبول تب رك سولال كو لو جلا باي ندخ جيكو لاكو واي جيكو يوي واي جيكو يوي ميغي تي عبد العزيز مي ندخ مو ني خيوله جو خيوله يلا واحنا في حديث القدسي طيب، يلا واحنا في حديث القدسي عبدي نعبدي لم يشكرني لم يشكرني اذا لم يشكر اذا لم يشكر من اجري من اجريت من اجري نعمه على يدي نانا سما جامبي سانت جي ما سانت دوما كو ريكونيتر لودول داف كو جارالي تي جام تي te macha allah te macha allah suñu jotaay yiw bii Pape Habib nee na ci sëriñ Abdoul Aziz mii la ko yàlla jaare te jotaay bi dafa fees yiwu yàlla ndax yàlla wax na ba tey ci xadisu qudsi wajabat mahabbati wajabat mahabbati للمتحابين للمتحابين فيا soo ko xoolee ci jotaay bi soo ko xoolee ci jotaay bi da nga ko fiy gis da nga ko fiy gis fii ñëpp a soppante fii ñëpp a soppante ñëpp a bëggante te yàlla tax te yàlla tax wal mutajalisina fiya ak ñi nga xam ne dañuy am jotaay di toog ngir man wal mutazawirina fiya mu dugg ci mu dugg ci li ma doon wax ci ziar yàlla nee na sama cofeel sama àjjana sama lépp war na ci ñuy daje di ziarante ji ngir man wal mutabazilina fiya wal mutabazilina fiya di jël ci seen li ci seen. di jël li ci seen poche di yulli. di yulli di yulli maanaam ñiy yulli di joxe. ba ñu def li ñuy wax thésaurisation. di bañ a def di thésauriser baaxul. ndax yàlla ngi tëkku ñooñu ñi ndax yàlla ngi leen di tëkku ci alxuraan. alhaakumu takaasur. hattaa zurtumul maqaabir. kon boo kon boog. yàlla nañu yàlla. fayal yàlla. fayal yàlla. ci boppam. bàyyi bàyyil fi bàyyi fi suñu kilifa yi. bàyyi yi. yu baax yi ñu yàlla booleel muy le xalif général Pape Serigne am na ko ñëpp ñaanal ni ko Pape Abdoul Aziz waxee léegi mu laay ba sumb bii mu sumb ba sumb bii jumaa ji mu sumb yàlla may ko julli jiite ko ànd ak ay rakkam te yàlla bu mu yable te yàlla na taxaw demal bopp nee na ko ak ñëpp ñoo xam ne ñu ngi ci wetam الحاج مالك عبد العزيز نانا متفلكو سوني باي الحاج مالك عبد العزيز وسين وهما نانا متفلكو اك سين راكي محمد المنصور اك شيخ سيدي ابي بكر الدبا عبد العزيز واخوهم نانا اك اي مبوكم شيخ سيدي محمد المنصور نانا اك مبوكم بو باخ ما دي شيخ محمد المنصور سي جميل دباخ دباخ اك مبولم جابوتو شيخ الحاج مالك waaye daal ñu ngi sant suñu mag ji. waaye ñu ngi sant Pape Abdou mii bu baax. Abdou ku baax la. Pape Habib nee na Pape Abdou ku baax la. ku yaatu la. nee na ku yaatu la. ku rafet xol la. ku rafet xol la. ku ku ku ku ku ku mën euh, yaatal nit la. ku mën a yaatal nit la. yëpp baaxam li muy wax yooyu yëpp. nee na li ngay wax yëpp sa baax la. wallaahi sa baax la. Pape Pape bëggul gis kenn loo xam bëggul gis kenn. ci xat-xat nee na Pape Abdou bëggul gis kenn ci xat-xat wala koo xam ne rek mi ngi dund lu métti wala koo xam ne mi ngi dund lu métti moo la koy mujj yanul moo la koy mujj yanul waaye ñun ñoo lay sant waaye ñun si ñoo lay sant ndax xéewal gii nga ñu defal ndax xéewal gii nga ñu defal ndax ñii ñii ñu jàkkaarloo ndax ñii ñu jàkkaarloo gënuñu leen kenn gënuñu leen ñun ñëpp dañ fi ñëw di ñun ñëpp dañ fi ñëw di taataan si yiwu yàlla ñoo fi yemandoo ñoo fi yemandoo inna akramakum inna akramakum inda allahi atqaakum loolu daal lañ ci doon yokk nee na loolu lañ doon yokkaat di sant di sant Mouhamadul Bachir Mansour ci wax waxtaan bu matale bi mu waxtaan tabaarakallah ñu koy sant di ko gërëm yal na yàlla yokk sa leeru dënn guddal sa fan defal ko Cheikh Mouhamadou Mansour defal ko Cheikh Mouhamadou Mansour waaw ñu ngi koy ziar bu baax di suñu rakk di suñu soppe ak maam Abdoul Aziz sama soppe sama soppe da baax ak maam Khalifa suñu soppe itam ak kilifa yu baax yi fi teew ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen gërëm jotaay bi mu bañ a nekk suñu yàlla bu jotaay bi nekk mujj jotaay yal nañu ko yal nañu yàlla may ñu fekkee ko yal nañ ko fekkee waat ay ati ati at yu bëree bëri te ànd ak wér ak gudd fan incha allah yow tam ñu ngi lay sant sëñ Habib jëf si Malick ndax xam-xam bi nga fi wesaare jëf si ndax al ulama warasatul anbiya wallaay dëgg la waaye al ulama borom amilina bi ma nee na borom xam-xam yi jëfee lañu jàng ñoom ñoo ñoo tax ñuy wax. tax ñuy wa anta minhum. nee na yan amin amin si Malick. amin amin si amin amin amin. yan yàlla dëgg boo meloon neneen boo ñu woowee ñu gàntal la. waaw loolu rek la. waaw. lépp sa mbaax la si. waaw lépp sa mbaax la waaw moom mu ngi noonu rek sama sang la. lu ko waaw lu ko neex rek dama ko waaw dinaa jël bi may jox sagar yi na gën a ñëw rek waaw dama këram dafa dem këram waaw fekk fa grand bu rafet fekk fa grand bu rafet ma sol ko ma sol ko ak yére yi ak yére yi yi di buubu yi di buubu def lii ma ne ko kii maa ko moom ma ne ko kii maa ko moom ma noonu garaawul garaawul ma garaawul ko léegi dama bëgg nga wàññil ko bàyyi <laughs> dafa bëgg ma wàññil ko man daal ma dellu mu dellu si jub kalaaj non non dañu dajawaat dañu dajawaat mu sañ sa ci yërëm mu sañ sa ci <laughs> yërëm mu xol bi yaatu na xol bi rafet na Pape Abdou maam Abdou ma ne xol bi yaatu na xol bi rafet na te def nañu conseil am def nañu conseil am euh, gis nga daara ja ñëw na fa ay ñaar ba ñetti yoon bu ñëwee rek toog ubbi téere yi xale yi di firi muy bëgg ku yaatu xol ku rafet xol yàlla na la yàlla fay ni ngay doxale ci mbokk gi rafet na lu dara sa maam Abdou moo leen tooñ bu dee tooñ la moo leen tooñ maam Abdou par force ku bokk ci moom da nangu ko kenn mënu ci dara koo jaamoo yàlla waxante ko yàlla rayante ko ba yàlla nangul ko ko kooku xaw ma xam nañ ci dara wala xamuñ ci dara dafa am fu mu tolloon am lu mu téye waxanteeg yàlla moom na moom ci boppam na nekk jaamu kër Cheikh El Hadj Malick nee na ba yàlla nangul ma jaam gi kon mu ni mu ni doom yi kon du ngeen ay jaam ay ay as seeda yàlla ay as njaam ngeen waaw doomu jaam as njaam la moo tax lii nii lii moo ko liggéey yàlla ko yàlla fay euh, jour noppaliku 2016. jour burdu noppaliku. ñoom Pape Habib ak Pape Solo dañ fa ñëw mu génn ci saal bi di leen dugal ci góor gi mu ne Pape Habib bii di jooy jooy yu métti rek laxasu ko ma jaaxle ne ko Pape Habib ba jàmm la foofu mi ngi bari nit mu ne wallaahi dama laa bëgg dama laa sopp loolu dafa rëy loolu nag dafa neex ci mbokk ah, benn baat rek laa ci wax mbooloo mi ñu ñaan mooy dafa am bis benn jotaay am ci buntu kër maam Khalifa Kébé jotaayu alxuraan sa mbàppa di wax ku ci nekk ni nga bokkee ak Cheikh Alxaaji Malick wax ci Alxaaji Maxtaar Diop wax ci Alxaaji xalifa wax ci Alxaaji Khalifa Baye Mbàkke ba mu mu ne mbokk yi jaay ñu leen askan ñii laay weer ndax am na noo xam ne kuñ ko wax noonu nga bokkee ak Maodo ngaa wax baa nga defati moo tax kenn taggu fi kenn dañuy weer suñu bopp foofu rek la jotaay bi tegee kenn gënu fi kenn mais dañoo weeru rek loolu la te man Mansour sa papa man maa jottalil bis Pape Maodo maa ngi koy nettali ci oto bi ma ne muy jot mu ne afa najaalul muslimina kal mujrimin ma firi mu ne ma maalakum léegi laa koy nettali waaye keroog dafa nettali ci sam Pape Mansour baax mu ni dañu war a dem Gàmbi di xaar Pape Mansour mu ni mu mu mu amul retard vingt minutes vingt minutes. maa ko jottali loolu. nee na dafa ñëw rek sukk sama kanam comme li Pape xabit mii defal la. noonu la suur moo mu defal sa papp mm-hmm. jooy ma ne ko Mansour lan la lan la ma maa ngi jéggalu retard vingt minutes bi. kon nag mu ne mu ne ko dama lay weer ndax doo nelaw guddi. mu ne ko ndax doo nelaw guddi. waaw ndax lay. te maam Abdou Aziz Dabakh moo wax ni Cheikhou Tidiane Chérif ñëw na ci man ne ma damay jox Mansour cadeau. moy lu mu ñaanati mu nangu ta lol jotalil nako pap mawdu motax moo tax sama maam xalifa ki dama cee wax ak mom mu numa ma ak mun ma xeesaayam du xessal de pap Mansour am Xalifa Kebe mu numa xessayam bobu du xessal de man nak dafa am yu may ki saa yu ma ko gisee dina am lu ma wax lim ma wax nak saa ba dewe ci dara ji dama koy gis waaw koku mom mak mom la tabarakallah kon yal na leen yàlla fay mbokk yi yal na leen yàlla dugal ci kaaraangeem Cheikh El Hadj mi ngeen yaakaar yàlla bu leen ci kenn ëppale yàlla bu ngeen rus yàlla bu seen noon bëgg yàlla bu seen soppe rus ñii def examen yàlla nañ ko am ñi bëgg borom kër yàlla na leen ko yàlla jox borom kër gu ñu yaakaar ñi feebar yàlla na leen yàlla wéral ñi bëgg soxna yàlla jox leen ko tànk yi metti ak problème yi kenn mënta wax yàlla décanté situation yi xéewal gi ñëw ziar général la douze mars la na ca ñëpp dem muy dimanche bi bi ci topp kon ñu jox Pape Mansour mu def ñaan moom mooy def ñaan nag waaw ñu bàyyi ko mu def ñaan na ñëpp tàllal waaw mbokk yi dañu bëggoon rek comme que fi mu ne nii yaakaar naa ku ku béggul wala ku sa aajo fajotul yaakaar naa mooy mooy sàkku sàkkuwaat fi mu ne nii ñaar gi nañ ko def benn yoon rek fi mu ne nii il est presque quatre heures am na loo xam ne nag day mujj doon xaq kon suñu ñaanee rek ñu may kilifa yi génn nànk bañ leen sonal bañ leen def dara def la ko ñu def ñu doyloo ñaan benn ñaan gi ñu ñëpp ku nekk aajo boo am aajo yéen a joo am te muy yiw yàlla la ko yàlla nangul ci ca ca ca ca na mu toll incha allah Cheikh Mouhamadou Mansour nee na ñu ah incha allah taala شيخ محمد بن نينا ني ديف سونو نيام شيخ الحاج مالي نينا فاتحه صلاه الفاتح نينا ني ايه الكرسي الاخلاص فلقي أكناسي ناسي نينا صلاه الفاتح ان شاء الله تعالى نينا نيان يالا يالا سامو ني با ديوان جام ان شاء الله ها نينا كن باني مانك امين يا رب العالمين بالمصطفى صلى الله عليه وسلم امين يا رب العالمين Amin, amin, amin.